Mouhamadou Lamine njol makka yaa leen gën sallallahu alayhi wa sallam mawla ñun ñëpp yàlla nañ giseek Muhammada mel na nii ba tey parcelle la ñuy des ndax euh, sëñ Moustapha Diop euh, tey sirul asir moom sëriñ Cheikh moom sëriñ Saalihu moom moo la ñu war a déglu moom nag mooy. numéro Moussa Diop numéro 22 waaw. sataa hiina wulidaat xayri nabiyin xad badaa salaali man adaa fuaadahu bilhikami sataa hiina wulidaat xayri nabiyin قد بدا صلى عليه من عدا فؤاده بالهكم نور عظيم قد يرى بقصور قيصر من كان في أم الخرى مكة خير الحرم إيوان كسرا صدغا فيها وقبل رفعا سمك له فارتفع نحو سما المكرم حتى سرير انكسر لأجل هول اعترى من نور أفضل الورى رب عليه سلم بعد صلاة لا تزول بالآل وساب العدول وبيجدد السبيل بلا عدا أو ألم صل وسلم على من هاز مولدا جلا لخيرنا ذوي القلاء ولتتقبل خدم مولده معزم مبارك محترم تعظيمه ينحتم على ذوي التقدم taasimu bi sunnati yaqaaduna lil jannati bi siyaadul minnati lil muxlisin muazzami faman yuazzim mawlida nabiyina babiluda فلا يواسب قدا فاحترم وعظم soxna Fatou Bintou waaw sëñ Moustapha Diop daal macha allah xam naa lu ma ci dolli rek dañ naan li mu sant Diop a tax xam naa ne billet bi moom bu ñu ma ko joxoon léegi dama ko koy dugalal ci poosam rek ñu ànd dem màkk macha allah neex na te li wax it dafa am solo ndax euh, juddu Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama suñu mag ñi ku ne woy na ko ndax wax dëgg yàlla dafa rëy mhm. wulidal huda fal kainaatu diyaa fu juddu rek lëndam dàqu leer dikk mhm. moo tax mag ñi ñoom ñëpp woy nañ ko waaye dañuy bàyyi sëñ Moustapha Diop mu wax ñu ci xasaayit bi moom lan moo tax mu tànn ko ak ki nga xam ne moo ko tëgg mooy kan. ñu ngi jégalu bu baax di siyaare suñu jëwriñ sëriñ Abdou Khadre bu baax siyaare sëñ Jaga siyaare sunu yaay ji muy soxna Fatou bint Diop wax nga dëgg xam naa ne li ñu sant bokk sant Diop moo tax. ñu ngi siyaare mboolem ki nga xamante koo xamante ni yaa ngi fi teew rek di tagg yonante bi sallallahu alayhi wa sallam eh, xasida gi ñu doon yëkkati mooy jësabul xulóob li la allaamal xuyub Sëriñ Tuubaa moo ko way yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne sataa na wulida xayri nabiyin xadabada mu ne sataa fenk na yii na wulida jamono ji muy juddu xayri nabiyin ki gën ci yonante bi sallallahu alayhi man hada yàlla na yàlla julli ci moom fuaaduhu bil hikima dënnam ba ci xam-xam xikam mi ne nuurun azimun xad yara leer gu màgg guy tax a gis bii ci moom ku soore xaysara peleb xaysar ba man ka nga xamante ne kaara nekk na fi umul xura ci ndeyi réew yu ndaw yi makkata xayrul xurumi makka mi ngi sunu borom warmal mu ne yiwaanu kisran sada yëngu euh, fiiha fa yëngu woon la samkun mu ne tabax bu jublu bu juboon la bu jublu kaw maanaam am na ci yenn lenn ci borom xam-xam nee nañ sax R plus 4 la woon ndax wa samal mu karre mi jublu asama mu tedd mi mu ne xataa xataa euh, sariron kasara euh, mu ne euh, keroog yëngu pale bi da doon yëngu ba maanaam lal yeeg mhm. Euh, euh, euh, mobilier tabax yëpp boole di mab di damm mu ne li ajli hawlin ihtara min nuuri afdalil wara waaw mu ne waaw mu ne li ko doon damm di lenn lu dul leer bu rasulillah gi nga xamante ne moo sox ko ci kaw di muur àdduna si yëpp mu ne rabbi salli sallimi yàlla na suñu borom julli ci moom waaye mu Moussa Ka suñu werakaanoo dafa waxoon ne mm. seen dex ya fer na keroog seen taal ya fay na kamaj te masala fay alfan amin sàmm yàllaahu mhm. nee na leeru ko rasuuli ga sallallahu moo ko melax nig dënn toj taax a tas mbooloo ma yàllaahu mhm. waaw sëñ Moussa xam naa ni comme noonu nga ko waxee ni ko soxna Fatou waxee wayin week yooyu yëpp ku la ku la dégg xam ni ci daara nga jóge mhm. waaye li ñuy laaj air bi ci daara nga ko jànge wala ci mag ñi nga ko dégge sëñ Abdoulaye Touré la moo ko way waaw bi ñuy nekk ci daara ji sëñ seex dafa waxoon moom ak sëñ Abdoulaye Seck nañ leen ni eh, teewlu bu baax ndax seenum njàng dafa set waaye nag bu ñuy jàllee moom daanaka mag ñi lay gën di hmm. roy bu ñuy roy nit it duñu jël li li muy li mu am lépp dañuy jël yax bi rek hmm. suñu jëlee yaxub yaxub daaj bi daal di jël nag sunu kii bopp daal di kii na solo moom tabarkàlla jërëjëf feeñ na ci bu baax a baax waaw kañ eh, sëriñ Moustapha Diop tey sirul asir moom sëriñ Cheikh moom sëriñ Saliou radiallahu taala ñu topp kon ci ki nga xam ni moom lañuy woo léegi muy numéro 23 bi di Serigne Cheikh Mbaw moom mi ngi jógee Zac Mbaaw. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah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 هذا أده البدر ملت لذكره وأذكره في كل مرأ ومنزري وأذكره عند الأغاني وإذ حلا مذاق فهو عمري مذاقي ومسكري وأذكره عند البلا ونغيده wa adkuruhu fi gaybati misla mahdari wa adkuruhu inda alxabibi walam akun li ansaahu waqta albaghidi almukaddari walastu ara mustahsanan gayra wajhihi فليس جمال غير وجه المدصر muraadi kawni almustafaa ayna aynihi wa illaa fa mawti fiihi shawqan li unsuri walawla ittizaadu fi ljinaani binuurihi lama xanna naxwa alquldi kulla mubassari wa layta rasulallahi kaana musairan li barxaama naaran xaalidan kulla masari allah allah allah allah allah allah allah allah allah allah allah allah soxna Fatou Bintou waaw ah sëriñ Cheikh Mbow de moom macha allah teg na ko si yoon neex na trop wax dëgg yàlla xanaa nga waxal ñu rek njëriñu woy bi ak ki nga xam ne moo ko woy waaw alhamdulilah wasalaatu wasalaamu moo ko wax mu ngi wax naan hawal Moustapha al Muxtaar ma sopp mut mari maanaam jaxasoo ak sama xelaat jaxasoona ak sama conscience mhm. wa kulli mooy sama lépp wa jus i mooy sama lu ne wa sirri mooy sama lu feeñ wa mazhar yi mooy sama lu nëbbu mooy sama lu nëbbu mooy sama lu feeñ mu ngi wax tamit ne isa da daw ul badri maanaam kër bu leeree leeraayu badaar gi rek miltu li zikri yi man jéngu naa rek jëm jëm si tudd yonent bi sallallahu alayhi mu del di waxaan ne maanaam képp koo xamante ni yaa ngi gis xam nga ne képp kuy daagu si biir àjjana rek leeru yonent bi sallallahu alayhi moo la may ngay daagu si biir àjjana. jërëjëf jërëjëf salaamaaleykum. ok jërëjëf sëñ Ndiaga waaw laaj bi rek. ci laay laaj parce que laaj bi moom lu ñu fente la rek. Mhm. di si góorgóorlu. comme ay xale leen tout le temps rek ñuy jëm di xool amoon nañu ko daan way ku mel ni Mouhamed Taha ak ñooñu waaw mais daaj bi daanul mel nii waaw daaj bi sax si ku ma ko gën a sàccee mooy Omar Ñaan Mm-hmm. parce que ñu ñaar toujours ñooy ànd. des fois bu woyee ma woy dañuy jaawale sax léeg-léeg. tabarkaale mooy kii gañe woon. daaw mooy ki gañe woon daaw. sëñ As Kandji ak ñi àndal. ñu déglu sëñ As Kandji ak ñi àndal. wa bi xaqi jaayika innani laka mu'ramun بأقيائك إنني لك مغرم والله يعلم أنني أهواك في أسفل الدار حرب لا البدر قد تعلب نزوله فوق بعد المنعز صلام وصليا يا إلهي وجزيا عبا مرني أن محمدا معتاد bëgg Maodo def la ni min kulli wasfin hamidin haasa asa ala tafdil rajaa ul baraaya ya maamu sudahamiya min وأفعالا يودي لرجاء البرايا إمام كوسوف ينندف لني وكان أشجاع أسخى الناس أخزنه خلقا وخلقا وخير الحزب والأولى وسوف حميد حاض أفعال يودي الرجاء البرايا يما المصدامين waa kañ jërëjëf sëñ As yaag ñi nga àndal léegi soxna Fat Bintu waaw ndeysaan sëriñ As de moom daf ñoo delloo rek ca gàmm ga demee ba toll ci ay trois heures du matin jëm 4 heures rek mu daal di riiru macha allah yàlla na ko yàlla def mag bég nañu lool xam naa ne man su may fii la ñuy jaar rek génn ma ci sinu bi ndax man damay daal di jël bëgg jël billet bi rek mu neex rek ma daal di koy joxe léegi du ma xaar sax final bi mm-hmm. euh, jërëjëf euh, xam nañu ki ko woy miin nañ ko muy Seydi Hadj Malick mais yow woy bi lan moo la ci gën a frappé boo koy woy ak lan ngay yëg min kulli wasfin min kulli wasfin kon nag firil ñu min kulli wasfin boobu boog mu jeex tàkk ñoo ngi bu baax tabaarakallaahu di mm-hmm. bu baax Euh, min kulli wasfin melokaanu yent yàlla Muhammad la maam Seydil Xaaji Malick di wane foofu ay doytuluwaayam ni Moustapha toll xam nga yéen ñi kenn ku ne buñ la téewoon naan la aka ngaa baax aka nga tabe aka nga yoru maam Seydi Xaaj Malick nee aka yooyu yëpp mu doon jal Seydina Muhammad mu ngi ci kaw njobbattal la waaw min kulli wasfin la wax bépp melokaan rek xamidin bu ñu sant xaasa làq na ñu ne kan moo ko làq mu ne rajaa ul yaakaar yi jaam ñi te mooy Seydina Muhammad mu ne nag af ala tafdili la ca gën nag waaw ñu ne kooku kañ kañ lañ koy yaakaar mu ne yow ma musdaxam mi ca bisub buuxante ba waaw bisub raj rajloo ba mu ne nag ñu ne ko waaw ki ngay wax xamaguñu ko de mu ne wakkaana nekkoon na moom yent yàlla Muhammad as jaa gën a jàmbaare. jërëjëf ci as mi ku ko bàyyi mu gàmm. <laughs> waaw waaw xanaa xanaa air bi. xanaa ci air bi rek. waaw Abdou Aziz Mbaye rek. Euh, Abdou Aziz def loolu. Abdou Aziz Mbaye barkala am léegi kon gannaaw euh, bi ñu dégloo euh, sëñ askan ak ñi mu àndal jóge Njaareem léegi ñu dem Cambérène woo fa sëñ Mansour ak ñi mu ñu ñëw waaw bu defee sëñ Ablaye Kebe waaj. الله